menuisier bi frère am la comprendre ñoom ñooy sottante xel donc euh, rappeur bi rappeur mooy frère am ku Ngaaka Blindé su dee day rap rek suñu frère donc affaire de frère boobu nag dem ci beneen ci beneen boo xamante ni pour man dépassé na affaire hip hop quoi ci nit rek ak nit pour man doomu aadama bu nekkee ci difficulté te muy doomu aadama rek. te final boo ci mënul boo ci mënul jàpp boo ko mënul yërëm mënoo ci jooy mënoo ci jàpp day defe naa sa doomu aadama bi nga doon des ni te mm, mu fekk fii nag Europe ñuy tourner nag nekk suñu liberté bu ñu tëddee dañuy yeewu bu ñu bëggee génn dañuy génn nekk suñu liberte boo xamante yàlla def na ñuy xalaat ni am na suñu benn frère boo xam ne mu ngi Sénégal tey jii amul liberté boobu amul liberté ñëw comme Galsen 221 amul